waaw salaamaaleykum waa Sénégal donc dama ñëw rek pour am benn éclaircissement bu ndaw boo xam ne dama koy jox Sénégalais yi damay gis benn titre bu gars yi bind ni Mame Gor nee na Aliou Sall dañ ko war a jàpp man waxuma loolu li ma wax c'est clair dama ni Aliou Sall c'est bu ñu nangu benn tubaab taal suñu dëkk tubaab yi lu ñu bëgg mooy boyal dëkk bi dëkk bi tàkk ñu jaar ci ginnaaw sàcc suñu pétrole Aliou Sall c'est un Sénégalais comme tous les Sénégalais su fekkee ni tey jii procureur ubbi na enquête ci wàllu pétrole bi woo ko woo ñeneen ak ñeneen wut ay témoin lan moo tax mu koy def pour am lu ko ci leer su fekkee ni tey jii am nañu ci lu ko leer ñu wër ni dafa def ñu def ko nañuy def ña def su fekkee deful tamit ñu xam ni deful te man pour man dama jàpp sax ni Aliou Sall deful dara parce que tey jii pétrole ñu ngi koy wër depuis 1934 ba léegi te tey jii yàlla dogal na ki tax ñu gis petrole moom moo ko fi indi donc kooku am na mérite tey bu na njaay maa jigéen ba jolof maree naan yaa bënu teen loolu lañ ko war a waral Aliou Sall ba Sénégal mele pétrole yaa ñu indil ki génne pétrole bi loolu lañ ko war a woyal jàmbaar la Clédor seen mi nga xam ne nag dafay wër presse bi di wër réseaux sociaux yi gàddu ay fu nekk mu dem fa te yow ñu ne reykatu nit nga maître Babacar Seye ñëpp jàpp nañ ni yow yaa ko rey ñu tëj la ci vingt ans tey jii nga xëy suba teel taxaw mel ni yow mosoo def dara ci réew mi man daal Sénégal xuma moom bay dëkk bu nit di wax da ngeen di dem xool kii démbam lan la lan la liggéey li may wax daal sénégalais yi nga xam ne peut-être xamuñu kan mooy seen na ñu dem ci réseau sociaux yi ñu tàppe turu Clédor seen ak baaba kër Sèye mi nga xam ne waykat yeeg taaxuraankat yeeg journaliste yeeg écrivain yeeg ñëpp ko joy te tey ji ba ñuy def enquête bañ ne ku ko rey moom lañ ci jàpp tëj ko vingt ans tey ji nga xëy soxe soxe di joxe leçon de morale taxaw naan ay damay yor ay dossier Sénégal ma ñor yow bu Sénégal ñoroon dina la tudd ci magistrat bi gën a mag ci réew mi ñu ne yow yaa ko rey Sénégalais yeewu leen te xam li ngeen bëgg xam li ñu bëgg dox ko tubaab yi dañoo bëgg taal suñu dëkk wasalaam merci